dafa yàgg parce que HLM auparavant dañoo doon wax quartier résidentiel la c'est des comme Mermoz comme Bourguiba et consort et Sacré-Cœur mais léegi HLM boo ko tuddee nit ñi dañ lay dañ lay naan foofu romb jàll la donc loolu mu métti ñu lool métti ñu lool li ko waral la cause dañoo am population boo xam ne amuñu ko woon au début et auparavant ce son les anciens travaux yoo xam ni contenir defuñu woon loo xam ne benn contenance boo xam ni HLM dina mën a àttan actuellement nit ñi mën naa ne ci biree benn néeg HLM bëri na ay location mais bu dee benn néeg cinq personnes wala dix personnes mun nañ ko partager loolu dafay affecté si canalisation yi booy xool les vendeurs de de de restaurants aussi ñooñu aussi dama la ñuy alerter parce que ñoom bu ñu paree les déchets toxiques la si si canalisation yi lañ koy déverser ñuy dund loolu di dundu loolu pendant des années dafa nekk lu lu lu lu lu lu lu récurrent. bëri na ay livreur yoo xam ne daanu leen fi wala ay paa yoo xam ne mënuñu dox yor seen i béeki di fi romb daal di daanu tarxis déjà boo nekkee sa kër il faut ngay loy air libre parce que air boobu moo lay permettre ngay mën a respirer aisément et tout mais mënatuñ ko. moi je vais une lettre au niveau de la mairie mais y de retour. comme fii dañoo am urgence boobu damay alerte état bi. surtout ba son excellence monsieur euh, Bassirou Diomaye Faye ak euh, son premier ministre euh, Ousmane Sonko pour ñu jóg ci lii parler aux concernés pour wax leen le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour ñu mën a dooleel parce que affaire assainissement dafa nekk loo xam ne dañ ko sàgganee ci ci ci ci Sénégal